te du dund lu dul alquran ak xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waxu mag ñu bax ñi kon basiru bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جلدي مبكي أدو النبي مبكي سيطان وشمسي تي في نيغلن دني بباخ دلن زيار دينو يمبولم انترنتي وشمسو وشمسي تي في دينو يو سنشيخ تيجان نيانمي نغا خمني سنو ولرلا suñu xarit bu yàgg yàgg yàgg def naa léegi tey bu mat ñaar fukki at mm-hmm. ndax euh, maa ngi gis suñu benn émission bu ñu teg 2008 la woon ba léegi. Mm-hmm. te xamante woon nañ lu jiitu loolu. dëgg la waaw kon ñu ngi am kontaante ak mbégte ci teew si tey. Mm-hmm. ci chaîne am bi di Wassamsi TV incha allah. ñu fas yéene nag euh, commencé ak yéen tey dañuy ubbi rek. mais bu ñu demee ba ci yoon ba ci kanam incha allah da ngeen di faral di am ay émission yu baree bari incha allah. tey nag dañuy ñëw pour def euh, première émission ak Wassamsi TV incha allahu taala ñu fas yéene indil leen ay njëriñ tuuti rek ba beneen yoon incha allah ñu indil leen lépp loo xam ne nii da ngeen ko soxlawoo ci mbirum faj lépp loo xam ne da ko soxlawoo ci mbirum wërsëg ak luy defar ay nit ak yu mel noonu incha allahu taala sëñ Cheikh. Mm-hmm. waaw xam naa léegi fii jamono toll nit ñu bare. Mm-hmm. yaakaar naa ni wërsëg. Mm-hmm. tax na ñu tukki. dem biti réew. mais itam ña nga fa am ay jafe-jafe ay problème yoo xam ne mm. dañuy jaaxle mm. dañuy mujj ni mm. fan la ñuy mën a jëlee ku leen yóbbante ñaan wala ku leen defal ñaan wala ku leen tegtal ci ay ñaan ndax ña fa dëkk yor fi ay doom yor fa ay njaboot dañuy am problème ñu fa nekk yàgg fa lool te amuñ kayit ñii problème kayit dem ñëw mooy seen problème ñi ci des nag mënuñu fexe sax ba am liggéey defe naa yooyu am na solo trop. ndax réew mi ñu ngi ñuy déglu mais bitim réew it ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax. la dinañ ñëw nag ci poñ yu bare. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. waaw. waaw jërëjëf sëñ Cheikh ni nga ko waxee xam naa yooyu moom dañ koy programmer beneen yoon. Mm-hmm. mais tey moom dafa bëri ñoo xam ne. dañuy ñëw di ma jàmbat. ci di néegi sëy yi daal. waaw bëri na jàmbat lool lool lool. mooy sëy yu ma tas yi. ak xale yi nga xam ne dañuy dugg ci néegu sëy mm-hmm. muy xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi mm-hmm. seen sëy yi dañuy yëngu lu baree bare mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla même tribunal sax boo fa demee noonu ngay fekkee euh, ñuy atte ay sëy yu baree bëri te sëy yoo xam ne six mois la quatre mois la un naa la deux ans la benn doom lañ am ñaari doom am nañ problème dem nañ tribunal loolu mom bari na lu ma ci gis lu baree bari ba malheureusement fan yi rek ma ngi gis ben sey bo xamne ni euh mën na ko tuddé né waji contrat la defon ak ndaw si ndax waji dafa ñew tak xalé bu jigen bi dal di ko luyel ben appartement indil ko ben matla ak ben télé jël contrat luyee luyee 3 mois 3 mois yi jeex bu sé ndaw si dem bayiko fa xam nga mom contrat la mhm. te yu mel noonu dafa bari léegi ci réew mi loolu moo tax rek ñu bëgg leen di indil ay njëriñ yoo xam ne dafay jëm ci néegu sëy yi mooy loo xam ne tax diggante ñaari woy dencante yi seen diggante neex su fekkee ne nag tey jigéen dafa am jafe-jafe ak jëkkëram nga xam ne te yàlla def na ñu xuloo wala ñu merexante wala ndaw si fay wala jëkkër ji mer su boobaa dañ delluwaat ci alxuraan man nag li gën a bëri ci li ma leen indil yépp alquranul karim lay doon waaw lu ñuy indi lu gën a bari mm-hmm. alquranul karim lay doon incha allah mm-hmm. su ko defee kon ab jullit nag suñ ko indilee alquran rek mm-hmm. war na ko doy buñ dem yàgg nag dañ indil ay xas reen faj ak tur yàlla ak yëpp mën na ñëw mais tey moom liñ leen di indil lépp alquranul karim lay doon te nag alquran mooy nga xam ne nii moom lañu wax ne xus ma shitta lima shitta jeul ci alquran lu la neex ngir lu la neex waye nak mu ngi dépendre ci nga gëm ko nit ki fay gëm alquran ndax bi daf ne ud'u laha wa antum muuqinuuna bil ijaba da ngeen di ñaan yalla waye da ngeen di am confiance da ngeen di am yaqeen ci ne li ngeen di ñaan ni yalla dina ko nangu waye bul ñaan bu noppi di sekki sak da ngay am dogu ci ne limay boram ñaan ni borom bi dina mako nangul nga gëm alquran loolu nag su fekkee ne nit ki dafa am jafe-jafe ak soxnaam wala jëkkëram hmm. day dem ci alxuraan mu jël aaya bii mu bind ko daal ko booleek lu ñuy lekk wala mu boole kook lu ñuy naan wala mu boole kook fruit jox ko jëkkër gi mu lekk ko bu dee ne góor gi la itim mën na koo jox jabaram mu lekk ko hmm. incha allahu taala seen borom dana neexal seen diggante ñoom ñaar aaya bi nag mu ngi ci sotu baqara muy aaya cent cent soixante cinq aaya cent soixante cinq ci sotu baqara képp koo xam ne nii bind na ko boole ko ak soow wala nga boole ko ak jus wala nga boole ko ak fruit daal di ko jox sa borom kër mu lekk ko dina la bëgg lool dina la sopp lool même ñoom ñaar sax suñ ko bokkee lekk ñi nga xam ne nii dañuy sëy te bëgguñ ñaari jabar bëgguñ ñetti jabar mooy monsieur ak madame yi nga xam ne dañuy bëgg seen diggante gën a neex ñoom ñaar mën nañ ko def def ko ci soow wala ñu def ko ci lu ñuy lekk rek ñoom ñaar ñu lekk ko seen diggante gën a neex su ko defee ñu gën a nawante incha allahu taala te loolu yëpp nag alquran la waaye nag da ngeen koy gëm soo ko bindee juróom yoon nga def ko saafara def ko ci jus wala def ko ci soow wala def ko ci meew wala nga def ko ci raxase ko ay fruits yu mel noonu lekk ko yow ak sa borom kër da ngeen bëggante lool incha allah ba képp koo xam ne bëggoon naa dox ci seen diggante yeen ñaar incha allah moom dana am gàcce waaye yéen moom seen diggante dina continuer incha allah kon loolu euh, mooy njëriñ bi nga xam ne ni moom lañ leen njëkk a indil incha allah ñaareel bi nag mooy bu fekkee ne tey ndaw si jëkkër jee ko mere ndaw si moom amul problème ak jëkkër ji waaye jëkkër ji ci boppam xëy na moo dem ba doyal ci ndaw si wala mu gis beneen jigéen wala sax mu am ay jafe-jafe ak lu mu mën a doon rek ba tax léegi mu bëgg a découragé ci ndaw si su boobaa ndaw si moom itam mën naa dem bindu la aaya bii nga xam ne nii moo nekk ci suratul ali imran mu yaa ayyuha allazina amanu isbiru wa sabiru warabi wa sabiru warabitu wattaqullaa laalakum tuflihun moom itam da koy bind saafara ba noppi fexe ba jëkkër ji naan ko bu ko jëkkër ji naanee incha allah su fekkee ne da koy jàng it mu jàng ko tafli ko ci su ko ci taflee rek incha allah jëkkër ji dina ko bëgg lool dina ko sopp lool macha allah. tafli ko ci ndox. tafli ko ci ndox. jox ko jëkkër ji mu naan ko. Mhm. xam nga am na beneen baatam. Mhm. muy baatam bëddoohu. Mhm. baat boobu nag baat bu bu garaaw la. ci diggante ñaari way dencante. maanaam baatam bëddoohu. su fekkee ne tey. nit da ko jàng ñaar fukki yoon mhm. tafli ko ci pom mhm. wala mu tafli ko ci banaana mhm. walla ci xaal wala ci orange wala màndari jox ko nit mu lekk ko kam ko jox noona mu lekk ko fu jaar bëgg ko hmm? mu jaar sopp ko lu am solo la même ba bëddëfu boobu sax dañ ci faral di ñaanal ñaar ñoo xam ne dañuy sëyit amuñ doom léegi dañ koy bind ci ay doomi mbiskit dañ koy bind ci ay doomi mbiskit mbiskit bu nekk nga bind ci ba doohu def ko ba mu di juróom-ñaari doom muy fukki doom ak ñeent léegi jëkkër ak jabar ji ñoom ñaar bu ñuy séq rek ñu koy yëy ci jamono bi ñuy séq loolu suñ koy faral di def rek incha allah suñu borom mën na leen di may njaboot ci barkeeb baat boobu nga xam ne nii mooy ba doohu incha allah kon nekk na loo xam ne nii baat bu bëri mbóot la même sax am na euh, secret boo xam ne ni ñu ko ciy def nga xam ne day maye jëkkër nga xamne dang koy bind ci khatim jël bo do bind ko ak safaran jox ko ku jigen mu tak ko bu ko takke inshallah suñu borom subhanahu wa taala man na dimbalé mu am li nga xamne mom moy borom kër ci lu gawa gaw lolu amna ñu ci defal te bañ leen defalee yi wax deug yalla gis nañ résultat bu fekke nak dañu dem ci mbirum wërsëg señ Cheikh. Hmm. xam nga moy lepp hmm bu ñu dem delloo ci hmm mooy téere bi gën ci téere yi mhm. mooy téere bi mujj a wàcc ci téere yi yàlla wàcce ko ci gën ci mboolem doomu aadama yi mhm. mu yonent bi alayhi salaatu mhm. waaye it nag alquran saar bi ci gën mooy suratul fatiha suratul fatiha boobu nag am na secret bu am doole bu ci nekk boo xam ne day dimbali nit ci wërsëg day fajal nit ki ay soxlaam da koy jàng mille onze mille onze muy junne ak fukk ak benn mhm. waaye boo koy jàng nag mhm. ci benn jataay nga koy jàng mhm. doo ko dagg doo wax doo nelaw doo lekk doo dem fenn kenn du la déranger nga tëju ci sa néeg yow kenn képp moo xam guddi la moo xam bëccëg la nga jàng faatihatul kitaab ba mu jeex junne ak fukk ak benn mag ñi dee nee nañ bépp soxla boo xam ne def nga ko ci te mm. nekkul soxla boo xam ne soxlaab mooy yàlla la mm-hmm. insha allah suñu borom mën na laa fajal aajo booba mm-hmm. waaye nag sëñ Cheikh dafa am benn bindkat bu ma gis mu bind lu am solo mm-hmm. daf ne jaasi lum ñaw ñaw ñaw ñaw ñaw boo ko joxee koo xam ne amul kàttan nga jox ko xale boo xam ne mu ngi toll ñetti at di ci mën a dagg la nee na jaasi lum ñaw ñaw ñaw ñaw mhm. boo ko joxee koo xam ne mosul gis jaas yi na ko dagg ci mhm. du xam nu mu koy téyee mhm. du xam nu ciy goree kon buñ la waxee kayfiya yi itam lu muy baax baax baax day fekk na ka nga xam ne moo koy téye day fekk na ka nga xam ne moo koy ñaan mu xam nan la ñuy ñaanee xam xam ñaanin waaw xam suróot yi xam waxtu yi sàmmhanteeg li nga xam ne nii mooy ijaaba te mooy di lekk lu lew di sol lu lew mhm. di toog ci fu lew mhm. su boobaa su ñaanee suñu borom mën na ko nangu mhm. comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne ñaanu koo xam ne dafa tukki dañ koy nangu léegi nag ñu ne lu tax nag léegi nag nit di tukki ba noppi te day ñaan ba sonn te ñaanam du nangu yonent bi mu ne naka la ñaanam di nangoo parce que koo xam ne la muy lekk dafa xaraam la muy sol dafa xaraam la muy naan dafa xaram nan la ko yàlla di nangule bu fekkee ci yow da ngaa bëgg nit bëgg la. Mhm. nga xam ne tey da ngaa nekk ci société di fa liggéey. Mhm. wala nga nekk ci ab entreprise. Mhm. wala nga am ay doomi baay. wala nga am ay doomi ndey wala nga am ay nijaay wala ay jarbaat ay papa ay mag. nga bëgg ñu sopp la lool. loolu tam da ngay delluwaat ci alquranul karim rek. dem ci suratu yaasin. nga bind aay bi nga xam ne nii moom la suñ borom bi subhanahu wa taala di wax ne xaala mm. man yuhyil izama wa hiya ramimun qul yuhyiha allazi ansa awala maratin wa huwa bi kulli xalqin halimun mm. allazi jaxala lakum min sajari axdi naaran fiha antum min tuuxiduna mm. saar wu aay bu ngay bind waaye nag moom ngay jàng kon da ngay jël ay xeer juróom ñaari xeer for leen téye leen sa loxo nii xeer bu nekk nga jàng aay bi tafli ko ci xeer bu nekk nga jàng aay bi tafli ko ci. Hmm. ba juróom-ñaari xeer yi pare. Hmm. nga boyal ab fourne ba mu boy. Hmm. nga jël xeer yooya. di ko ci safara si benn par benn. bu xeer tàngee. insha allahu. kooku nga xam ne nii. moom nga bëgg mu sopp la nga ne diw soppal diw sàngam tafli ko ci. boo jàngee aay bi ba mu noppi. da ngay wax ne diw soppal diw. tafli ci xeer bi sànni ci biir safar si. jàngaat aay bi ne diw sàngam. soppal diw tafli ko ci xeer bi sànniwaat ci biir safara si hmm. ba juróom-ñaari xeer yi jeex incha allah hmm. nga xam ni moom nga tudd hmm. ci aaya bi ne na bëgg diw dina def ci moom incha allah baamtul aaya bi ci suratu yaasin qaala man yuhyil isaama wa hiya ramiimun qul yuhyihaa allazii ansaahaa awwala maratin wa bi kulli xalqin aliimun allazii ja'ala lakum mina shajarin axdarin naaran antum minhu tuuqiduuna aaya boobu ngay bind moom ngay jàng ci juróom-ñaari xeer moom ngay jàng ci juróom-ñaari xeer saa yoo ko jàngee tafli ko cib xeer hmm. saa yoo jàngee tafli cib xeer hmm. ba mat juróom-ñaari xeer hmm. nga xeer bu nekk nag nga tëmbal ko ci furna bu boy bu nekk nga tëmbal ko ci furna bu boy ba juróom-ñaari xeer jeex waaye nag boo koy jàng dang naan boo jàngee ay ba mu jeex nga ne diw sàngam maanaam nga ne sëñ Cheikh bëggal sëñ Basiru Cuun taf sëñ Cheikh bëggal sëñ Basiru Cuun beneen aay bi jeex taf sànni ci biir safar si ba juróom-ñaari xeer yi jeex hmm. insha allahu taala hmm. képp ku ko def nit dina ko sopp lool lool lool ci barke alquranul karim kon dafa mel ni kii foofu lañ koy tënk rek hmm. ba beneen yoon insha